dem na daral laajte naa gaa yëpp lu ko dal ma daa teer ko bañ naa léegi fay sama far sabablu naa yeglu naa te ndaxte gaa yi ma xam tey gontu naa junju naa dox naa ba ndëg buy tey liyaar naa samay waaye samay dëkkandoo bokkat xarit làmb naa jàmbul ba sax njëg bu xar mboolem ku am baax riis dem buntam ba nga jël beneen day nuyoo gardé nga daal di may kar mboolem ku am baakuriis dem naa buntam bali kat ma dem feneen day nuyoo may kar ak tiisa kuk njàkkare xol war ma kàpp mu saf coon ak nakar tàyyeel nag fi mu nekk yi du ko jar ak tiisa kuk njàkkare xol war ma kàpp mu saf coon ak nakar tàyyeel nag fi mu nekk yi du ko dox naa ba sonn dajal naa fépp fépp dëgër xanaa ma ut picc mbaabeel ba si laa dema gor doolin ma am njëglu gan ñaanaatu ak jëlu gor si laa am njëglu nag am xaab dugal sama kër xotil samay doom saa xel tan si coono di mbër si laa am njëglu nag am xaab dugal sama kër xotil samay doom saa xel tan si coono di mbër من جلنا من سندنا من فيتنا ثم كر من جبنا من جرمنا دوم جبرينا من جلنا من سندنا من فيتنا ثم كر من جبنا من جرمنا دوم جبرينا